nee na nañu nekk ci ñaari diggante rek sax dàkk ci sant sax dàkk ci soññ suñu bopp nee na loolu rek la nee na baat yooyu nag kenn ëpp nu ci cër nee na nun dañ noo war a sant la yàlla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 jërëjëf jërëjëf na ñëpp toog na ñëpp toog rek ba sëñ bi jóg ba noppi waaw mbooloo mi